non baax na baax na donc maa ngi koy sant di ko gërëm sama saak bi sant naa ko gërëm naa ko hmm, waaw ngeen santale ma ko mooy sama compagne sama compagnie bu weesoo loolu nag wax naa leen ab wax ñe non Mollah la takk jabar <laughs> non Mollah mënugul takk jabar sa waay yéen ne ngeen résistant yëpp seen seen jabar yee leen rey seen jabar yi ñoo leen reylu résistants yëpp seen jabar yee leen reylu Macky sax jabarama ko reylu mu ngi noonu sàcc ay milliards Marème fay xam ne ni tey jii bu Macky Sall kii day daanu moom ak ñooñu waaye léegi man ma nekk ci digg xare ngeen ne ma ma dem takk ji jabar xanaa man damaa bëgg a dee xanaa damay xaru ma takk jabar Macky Sall jaar ci suuf jox ko ab ab mu ne ko jox def def ko ci lekk bi mu faatu <laughs> jël ko jox ko ko benn deux milliards mu dem def ay ay yërëm jënd ay yërëm jënd dàllam yi rafet defar àddunaam ba mu rafet posone ma du ko saf dara saafara ba lay jël rek sotti nga naan dóor ba sa mbàq li fees bu géex <laughs> chéri chéri ceeb bi neex na de fekk da ko posone man fu nekk nii amul aw gel sax aw ma ko du wóolu gel sax aw ma ko sama saak bi daal man ak sama bopp ak sama saak point voilà du ma kenn wutuma gel wutuma jabar <laughs> wutuma doom pour l'instant pour l'instant ba xeex bi pare xeex bi pare bañ am sañu ndam 2024 ñibbi si si jàmm bu boobaa nag takk takk ci sénégalais yi kenn ko bëgganteel doole bu la reyee sax du yàq dara parce que idée bi day dem bu la reyee day fekk Sonko moo fay nekk ak ay géem continuer la garaawut <laughs> une partie se compose la fondent et de vivants qui la ji sama xeex bii fi jël kenn nga xam gel yi nga xam ne ak ñoo gaaw ci trahir dañu cee bari de ak ñoo gaaw ci trahir moo tax gis nga sëy yi yàggatut dañ koy takk lundi fase ko mardi <laughs> dañ koy takk lundi feet ko mardi fase ko mercredi nga xam ni ñoo bugg àdduna politique safu leen jigéen yi bëri politique safu leen lijjanti wuñ ko sax bu ñu yeewoo ñu xool ngénte wala xawaare wala super ndaje wala yére bu mujjóg wala dàll bu mujjóg wala wala wala pédicure manicure dinaa ci takk ni di ci rey sama bopp te saa saaxe sama bopp du ma saraxe sama bopp maa ngi fii résistant soxlawu ma jabar soxlawu ma doom pour l'instant maa ngi doyloo yàlla ak jullem ak kurusam <laughs> voilà ngay dugg ci loolu léegi ñu rey la dañ lay rey ñoom ñoo lay rey ñoom ñoom ma foofu politiciens yi fa la ñuy jaar rek sànq la nga dee <laughs> sa waay doy na sëkk pour l'instant doy na sëkk merci ni ma koy dundee nii mi ngi neex maa ngi ci jàmm di xare di reyante sama xel new yooyu sax nekkul si maa ngi ci sa euh, doyloo suñu borom di di xare point pour le soxlawuma kenn soxlawuma benn jigéen kenn ku nekk sama wet soxlawuma kenn bu Macky Sall tey ji fu mu nekk nii boo fa takkoon jabar sax bàyyi ko Sénégal Macky Sall kidnappé ko duulal ko xam nga dañoo mën a fen sosal ko <laughs> ñu ñu ngi yeewu suba observateur yu mën a duul ne dañoo jàpp jabaru la Morgun ak 45 kilos de drogue 45 kilos de drogue ak doomam ñuy nangam jàpp sab jabar jàpp sab doom nag di la misère loo di la misère loo <laughs> di la bëgg a rey sa xol bi di chaine ñu ne sa jabar lañ jàpp ak 45 kilos yaa mbaa sa sa doom la eh, yore woon ja yow eh, eh, yow wala ñu jaar ci suuf sax di tëddee sa jabar nag di ko tëddee di jaral na leen milliard jox ko sa jox ko sa jabar di tëddee sa jabar nag pour metti tal la jël fo photo sa jabar taatu neen yónnee la ko ne la di nga noppi de noppi cuut kii du sa jabar kii du sa jabar sa doom a ngi nii tëdd ñu ngi koy ñam ni gis nga vidéo bi ñu ngi koy ñam-ñam yi metti nga ngay noppi noppi waa ñu noppi loolu ñu génne nday vidéo noppi loolu ñu génne photo bi waaye yow booy yooyu duñ ci nekk Eh, jaajëf waay. jaajëf jaajëf. jaajëf sinab bi ah. ye Mawla Mawla. ye jaajëf jaajëf yaa fi ne. Ah. Ah, dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la maa lay bëggee <laughs> tam yaa ngi fi de. yaa yaa fi waaw kon yàlla nañ fi nekk rek. Hmm. mën ngeen a dugal trop mën naa yaa fi nekk kàcc man dëkk bi xanaa temps yaa c'est <laughs> pas compris yaa moom lan la. ku génne terme boobu terme caga jooju ku ko génn yaa fi ne fu fu ma ne ki la naan yaa fi ne kay moom mi ngi fi wala daa dee non mais réew bi da ngay xëy rek dof ñoom tam ñoom seen yii mënuñu ko bàyyi bu aéroport buntu aéroport bu ñu duggee ci avion yi arrêté seen yooyu la nga ñëw bu ci dëkk yii nag yaa fi ne loolu loolu mais qu'est-ce que ça signifie yaa fi ne c'est-à-dire la es là mais je suis là mais même toi tu es là qu'est-ce qui se passe j'ai rien compris bopp sax a ngi yëngu maa ngi newoon ci développement yi benn ab xaj bi naa ma fi nekk ak ñu kenn xamul yàqal na ma sama sama eh, développement fu nekk nii Sénap na ma de yóbbu na ko de Sénap na xaw ma fu mu koy yóbbu nag nee na ma am ma am ci benn Sénap yóbbu na Sénap ba de xaw ma fan la koy yóbbu ak lan la cay def man réew mi dinañ ma dofloo foo romb ñu te arrêté la Sénap la dóor la yaa ne dem ak moom te doo ko gisaat parce que ma yoruma Sénap man ña ngi ma yóbbu rek xaw ma fu ñu ma yóbbu nag mbaa duñ dem jox ko Macky ne ko sama doomu ndey la ñooy nekk j'ai pas compris yàlla baax na yàlla na doon lu baax rek donc bon lii de mes revenus lu ma doon wax mooy lan nee naa leen euh, jabar gars ay <laughs> ay kuttu mbaasaan lañ te jabar moom bu amul diine diine diine dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fooye ko yomb na jabar jigéen dafa dafa rax saytaane boo fi bàyyoon sab jabar Macky xeex bu ma koy xeex ne jaral na ko dix milliards jox la dix milliards Marième fa lay jox cinq milliards Macky Sall jox la cinq milliards ñu boole la ab ab ab ab man mu jàpp sa jabar juutal tëddee fi def vidéo yi sap sap xoolal toroxal leen bañ na tootu wër na yàlla vidéo te euh, caméra ba bu koy def sax xoolal dañuy doxaan sa jabar te caméra ba bu ñu koy def sa jabar du ko yëg ñu dóor ko fenn di caméra sa jabar ñu koy tëddee ko dëpp ko dippi ñu jël yónnee la la te fokk noppil kii du sa jabar ah, ah, ah, moo tax man yooyu mayuma leen port yooyu stratégie stratégie mayuma leen man kan la ñuy jàpp kan lañ kuñ ñan lañ foogoon ni sax bu ñu leen laalee ma ma ma noppi sama waa famille ñu ñëw jël ay pëna la kër ga sëf taal man leen tey acca na tàkk na tàkk tey rek ma ñàpp seen maam ba dañoo tiit ba naan non moo taal këram moo taal këram parce que xamul tax parce que dañoo foogoon ni buñ jaaree ci taal kër ga damay tiit na <laughs> noppi fekk ci laa gën a féroce jour boobu laa génne leen rey leen leen suul leen leen rey leen paa bi dem leen ngeen suul ko suul leen paa bi ba la fa fekkee maire bi boole leen ko ci bi tamit ngeen suulaale ko le combat continue léegi le combat continue acca acca troupe bi ay acca ne eh, ki dof la de kon <laughs> ndagari kii kii boo taalee jër gi rey ñu fa nekk yëpp du day ko ne combat bi <laughs> kon dañuy jéem a jaar fu la mën a toroxalee fu ñu la mën a nappee fu ñu la mën a noppiloo bañ ko jaarelee ca papa ma gën a dëgër gën leen wow ne leen yéen waaw boo leen rayee paa bi ma suul ko eggale combat bi boo leen rayee mère bi ma suul ko mais <laughs> ñoom ñëpp ñaata ñoo fi am papa ak yaay ñu dee ñu suul leen ñu ko ne combat bi dañ dañ maa mun a teree mënu ma ko jooy ay at boo ko jooyee benn fan ñaari fan la dama leen di suul continuer damay continuer sama combat damay continuer am donc ñoom xam nañ ne donc waa yii ay di ko la ci papa naa da ngay napp papa jeeg da ngay day day day gën a sang day gën a sanguinaire sax <laughs> voilà te imagine toi ñun bu ñu def buñ jaar nañ papa ak yaay mu cóol kon dañ fan lañ doon jaare jaar nañ papa yaay frère sœur ñëpp nekk ci biir mu cóol ma gën a tàng.